jërëjëf Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ànd ak Cheikh Mouhamadul ak njabootug Serigne Touba le Président de la République jërëjëf lii rek doy na ñun taalibey Serigne Touba lañu moom la ñu doon moom la ñu bëgg a doon ci la ñu judd ci lañuy yaru ci lañuy ñuy dee sëriñ bi wolof dafa ni ku saf la la saf nga saf ko ku saf la la saf nga saf ko ñun Serigne Touba rekk a ñu saf liggéeyal Serigne Touba rekk a ñu saf te yow Serigne Touba saf na la kon di ñu saf ñun amuñu lu dul Serigne bi bëgguñu lu sëriñ bi xamuñu lu dul Serigne bi barke sëriñ Touba sëriñ bi nag ca moom laa jóge léegi mu ni ma naa la sant naa la gërëm. di fa dem léegi dina la ko confirmer bu ñu fi nekkoon di lim gis nañ ko raté li nga def bari na ci yoon wi te kat ñun yoon wi rek la am ku jàpp sëriñ bi ñu jàpp la jàppale la ku faale sëriñ bi ñu fal la faale la ñun sëñ Tuubaa rek la am moom rek la ñuy noyee te yow sëriñ bi day sa sëriñ di sa baay ba pare nga wekk ko respecté ko bëgg ko nee na lu mu la sant nga yàkkamti ko jëf ko waa ñun ñu yaakaar sëriñ Touba kon nu ñuy def te sëñ Abdoulaat ni kat sëriñ Touba ku ko lebal taalibe yee lay fay lu tax duñ la fay dañ lay fay ndax ñun soxoruñu iñaanul dofuñu ku soxor ku iñaan ku dof du gërëm taalibe sëriñ Touba yi dofuñu soxoruñu iñaañun lii nga def jóge oyiya ak sa coono ñëw xew-xew bi xew ci réew mi ñu la koy massawu di la ko jaal muy naqaru Sénégal gépp waaye dogalu yàlla yi kenn du xëccoog moom yàllaa ko dogal waaye yow sa jaan wàcce na ndax léegi nga dugg ci jumaa ji ma won la poste avancé bi fi ne nga ni ma fii nañ ko définitivement jagleel jumaa ji dinaa fi indi appareil médicaux dinaa fi affecté personnel ñu nekk fi di defar nga ni ma ndax am na morgue man la amaguñu morgue nga ni ma dinaa fi def morgue waaye lii ku la ko defal doo ko gërëm doo ko sant ku la defal lii doo ko jàppale waaye ñun dégluwuñu kenn Serigne Touba rek lañuy ñuy déglu Touba booy dem une heure de temps nga egg dëkk bépp toj nga ko di ko defar te ñun du ñuy dof yàgg nañ ci réew mi. yàlla ñu jële ci milieu politique indi ñu ci sëriñ bi waaye xam nañu ni réew di doxee guddi bëccëg timis takkusaan nga jël sa bopp di defaral réew mi dañu defe ni avion dugg avion dafa neex neexul dafa metti bala ko nit a xam na dugg wàcc fii dugg wàccaat nga dëkk ci ngir réew mi sëriñ Touba nag ñun moom la am dama ni bul teggi sa tànk ci sëriñ bi bul gestu mukk bul déglu kenn xoolal sëriñ bi rek dëgmal ko dafa ni woon du la ñaanal da lay bàyyeek sëriñ Touba ñu nit duñ la ñaanal duñu dogu ki mën a ñaan mën a xëcc mën a dogu ci moom nga jëm léegi boo demee wax ko li nga bëgg rek boo ko waxee lépp maase ñu takk ko teg ko ci sa loxo moom rek lañu am ñun xamuñu kenn sëñ Touba rek lañu ñu xam kon sama mbokk taalibe yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm it sa ministre l'intérieur ñëw na waaye ñëw na ñëw na ànd ak yow waaye ñëw na te moom dañu ni dooley jën ndox moom mënul dara amul dara xamul dara yow yaa man yow la réew mi wóolu teg la fi yàlla teg la fi yaa koy jox ay directives yaay clé de voûte de toutes les institutions yaay définir la politique de l'État dans sa globalité yow yaay yor le budget di ko di ko distribuer kon lu ci waay def yow la kon bu defee dara yow la moo ñu defal tànt bi jar na lu ëpp 30 millions yónni fi xaalis say xarit yoo xam ne bëgg lu la neex ñëw fi ay Umar Sow ak ñépp ku ci ne indi na fi teranga te yow rek a tax loolu duñ ko wax ah, buñ ko waxul soxor ah, buñ ko waxul iñaan ah, te ñun soxoruñu iñaanuñu yal na la yàlla fay yaa ngi dem nag ci sëriñ bi boo demee wax li nga bëgg rek moo ko yor takat moom lu ñu wax ñu def ko keneen koo dégg muy wax leneen it dafa gëmul sëriñ Touba ndax ñun sëriñ Touba lañu gëm te liñ ko soxlaa du fii koo ci ni taxawal ci xal bu ciy teg tànkam di ko tekki te sëriñ Touba dox suñu digganteeg safara kon kooku lum ñu wax ñu def ko bu ñu joxoñee ñu ànd ak yow bu nee ñu jàppale la ñu jàppale la na nga xam ne ànd nañu yow te dinañ la jàppale dëgg la wala du dëgg jërëjëf sëriñ Touba sëriñ bi maa ngi daaneel sama kàddu fi Mbàkke te Cheikh Mouhamad Bachir kat du toog may wax sëriñ bi nee na ndax ñemewuma ko ndax kii rek la Serigne bi waxal mooy kàddoom mooy ndijooram te li dem ci jumaa ji mu jaar ci loxoom mii moom ump ko ndax moom lañ doon liggéey loo ma topp ci ginnaawam. tali yi ñu fi def rek ëpp na 4 milliards 500 millions defaral ñu assenissement ba ndox du fi taa te fii géej la woon bi ma koy assainir di dindi ndox mi ak Cheikh Mohamed Lamine Bara ñetti tuyaux la ñu def yépp nekk émergé nekk ci suuf ñu koy manque pendant une semaine Modou Mbaye Samb mi sapeur pompier la woon du ma bàyyi may fen ñu tabax fi jumaa ji ma wax la ko mu bokk ci suñu programme boo ko deful woon dañ koy financer ak taalibe yi nga ni loolu sasoo naa ko 4 milliards 500 millions la assainissement ñu pare ci loolu matériel bu dugg ci jumaa ji da ni nañ ko exonore bu ñu fay TVA bu ñu fay douane waa loolu duñ ko wax duñ la gërëm yàgg naa la ko bëgg a wax fii ci ci barab bi kon ñoo ngi lay sant di la gërëm taalibe yi jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Mouhamad Mountakha waaye jërëjëf it Macky Sall wax leen loolu ma dégg ko ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf jawriñ ngeen jawriñ Mbackiou Faye li mu wax ni mu leere léegi nag ngi leen